bitim réew fu waay nekk euh, di suivre waxtaane ko ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy ziar di ko jox wàccuwaayam xam na ne nag yéen ngi si kër yi di seetaan waxtaane ko waaye itam yéen a ngi ci plateforme bi Sen TV l'officiel ci Facebook ak ci YouTube bi du ñu seetaan euh, fu waay nekk rek jamono jii muy Sénégal muy bitim réew du ñu bàyyi xel ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen jox seen wàccuwaay euh, di ñaan yàlla nag jàmm ji yàlla nañ ko bokk xéewal géeg nga jiit mu ñu ko ba ñu doyal sëkk sëkk di ñaanal sama yaay Caam Demba Alcaak ak jogama yàlla na yàlla subhanahu wa taala xare ko aljana yaay booy yàlla na àllaaxira du noflaayam yàlla na ko yàlla attee ci yërmandeem jéggal ko ay bàkkaaram te xaare ko aljana yi gën a kawe sama yaay ajaratu ab sa jëng saala way ne yàlla na yàlla xaare la aljana yaay booy yow it yàlla na àllaaxira doon sa noflaay yàlla attee ci attee la ci yërmandeem te jéggal la say bàkkaar loxoy eh, njaboot gi fi bàyyit yàlla na subhaanahu wa taala teg ci loxo bu baax a baax a baax nuyu nañu ñëpp ziar nañu yëpp sama rakk ju baax ji eh, inspecteur maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax tey ji nag moom ma daal di defal perruque bu ni muut sama rakk ji yàlla na yàlla yokk xéewal gi ak sutura gi bay it lépp loo xam ne def ko ci teraanga nag ndax nag yaakaar naa ni ba ma xamee ak tey réccu ma ko luy sañse di dal ci perruque ba ci parfum lépp euh, macha allah yaa ngi koy séq ak teraanga ak man yàlla bu teraanga dakk waaye itam yàlla yokkul la koy xéewal ak teraanga yi du dakk abadan maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar inspecteur euh, sama waa ji sama sëriñ tabarakallahu taala yaa xam ne boo ci jaaree rek damay yàlla dafa wax ni nitu aljana bokk na ci matal kóllëre nit di ànd ak ba iitu ji la saa su nekk njabootam bu dul njabootam ay nitam bu dul ay nitam am ñu ko doon béggee saa yoo nuyoowee nuyu ko yokkaan nga cofeel sa diggante ak ñoom alxuraan nee na wala zinahum li amaanatihim wa ahdihim raa'un yàlla nee na ñi nga xamante ni kóllëre dañ koy sàmm yàlla nee na bu yowmal xiyaame maa leen di dugal aljana ci nuyu noonu nga koy defee ci aja su tabarakallahu ni nga ko waxee mook sa way juru jigéen yàlla na ko fa dàqal leen fii ci wetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca barzaq yàlla na ñu yëg ni ñoom itam ñu ngi ñuy tiitoro ci wetu yonent bi ni ko ñu am kóllëre ngi nii ñaanal yàlla xalifa généraux yàlla na yàlla guddal seen ay fan rawatina Serigne Babacar Sy Mansour waaye di ñaanal sama Serigne xalifa Serigne Babacar xalifay Mame Malick Sall xalifay Seydi Jamil Serigne Mansour Sy Jamil mantu ba démb dafa am ñoo xamante ni ñu ngi kaso ba nekk Louga ndeysaan di ma yónnee ay appel di ma woo di ñu ngi fii ci kaso bi waaye bu ngeen ñu kontaan loolu dañuy bég loolu ñoom amadook ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak boo xamante ni yaa ngi ci réew mi rek bu waxtu wi jotee ngeen bàyyi lépp di ñu safoo di ñu a lay ziar itam wàcc la sa wàccuwaay borom Tiwaawan ak sama taalibe bi borom Fojeka borom maa nga toj maam Sidi Diop nee na ma yaa ko toj maa nga toj Sidi ah, ah, te xam naa ne à tout moment rek yéen dara mën naa dugg waaye loo fi duggal rek maa ngi yow la ci kàttanu borom bi ndax yaa damay toog bu ma ñëwee bu ma ñëwee ci kilifa toogaayu yaay toogaayu nit ko am personnalité te maam si di sama image lu koy yàq ci lay dox xam naa ne à image mën na dugg waaye à tout moment bu image duggee rek di nga dégg lu ci bàyyi nga xam ne du jamono du diine jamono la wallaay sama taalibe bii aka yàqu sii di ah, <laughs> de samedi xam ne moo ko sama taalibe bii <laughs> ma fu ma wéer wallaay <laughs> yow yow am na fil bu rod bu dee am na fil buy lang noonu ci suuf xam naa ni sama waxukaay bala rek mu ngi sama kanam kay mu ngi nii may jàkkaar lool tabaarakallaahu ayca aja ayca eh, Mantoulaye maa ngi lay nuyu bu baax di am mbégte ak bànn di fent ak ci émission bu mag bi leen eh, di nuyu di ziar Oustaz Mouhamed Mbaye di képp ko xam ni yaa ngi seetaan à travers la Sen TV may nuyu nag di sargal tey Mouhamed Diop doomu gañ Siri caam ak Awa Baba bi fête anniversaire am yàlla na ko fête at yu bare bare ak lu be tooj ñoom arab abib bu saf bi yëpp ak sa jaay Alsaan ñu ngi lay souhaité joyeux anniversaire di ko souhaité nag tey la grande dame Adjaratou kenn Fall borom famille lu yàgg dëgg la ma ndikku mi ci mbëlëg ma ndikku mi ci làmbaay dundal téeméeri at yu ànd wér famille bi àndandoo di la souhaité joyeux anniversaire yal na ko fekk at bari mu ànd ak wér ànd ak sa mbooloo ak sa nawle yépp yàlla na la yàlla defal jàmm di nag suñu soppe koo xam ne mu ngi tudd Adjaratou Ndeye Khoudia Ndeye Khoudia Diaw madame Mbodj nekk ca Jedda nee na moom bala muy def dara su yeewoo dafay seetaan waxtaane ko mu nekk wétalam di ci nuyu ci oustaz Mouhamed di ci nuyu Mantulaay di nuyu ci âge daga ak képp koo xam ñu ngi koy bokk rek ñu ngi lay nuyu bu baax ca Jadda de la part jotal na yóbbante bi na fi gay jotal la ci ak arab bu ñu ngi lay nuyu ñun tam di la feesal di la beesal suñu cofeel ak suñu yëg ak suñu soppante jërëjëf nekk leen ci jàmm mu ngoog euh, yaay tey nag moom temps xam naa ne xaw nañoo xoj lool lool lool ba yaakaar naa ni dugal tam sax Euh, mën na fee bañ a xaj euh, Ndiaga Fall ñu ngi lay ñu ngi lay ziar ci loo mën ci nekk rek euh, jàppal na ñu ngi ci nekk ak yow ñu ngi lay ziar bu wér a wér di ziar njaboot gi wér waa Thiès bàyyi ñu kenn Fall xamal ni nag fi mu toll nii tey moom gisuñu la waaye yaa ngi ci xol yi tey moom gisuñu la waaye Fall Yaram yaa ngi ci xol yi dëgg eh, yàlla baax na Jibi Diallo kooku yow kooku du yow kooku jaga du yow jaga moom macha allah du du yow Fall Yaram moom jaga du yow jaga du yow ma ne jaga du yow de macha allah yàlla ko yàlla fa cat Fall Yaram ci farata rek lay dox boo ko gisu rek mi ngi ci farata Fall Yaram koy ñaanal yàlla jàmm waaw ñu ngi lay nuyu monsieur le préfet Jibi Diallo waay partenaire émission bi ñu ngi koy nuyu monsieur Jibi Diallo waaye tam ñu ngi nuyu Euh, kii Diop sopp na bi. Serigne Mor Gueye Serigne Mor Gueye Serigne Mor Gueye topp borom baax moom bu bëgg ñu borom borom Thiès euh, ñi ngay nuyu ñëpp daal faal daanaka mënuñ ci jaar bu Boubacar Faye kooku suñu nitu bopp la ñu laaje waaye moom nuyoo xam na ne bu ñëwee rek nuyoo ñëpp waaw waaw xam woo lay nuyu ñi ngi lay nuyu yëpp di say soppee di say am di jàmm waaye tam nekk suñuy soppee nekk suñuy am di jàmm ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ak ñëpp yaay xam naa ne tey moom euh, mooy loolu temps bi def ñu xaw a xoj bee ay tam yooyu du du du du du fi xaj waaye daal sama yaay xam nga man dafa may neex ma koy lalal basang waaw parce que man dama koy lalal rek sama yaay toog teg araw gi fii attaay gi di jooli fee ndox mu sedd fee sama yaay ñu koy lalal muy waxtaane ci kàttanu borom beeg mën-mënam yaay daal yaakaar naa ne mën nañoo dugg tey rek wax ci wàllum sëy xam nga dañoo jël nag yëpp di ko jor góor parce que semaine bii passé xas nañu nee nañu lan moo surtout Fall sax moom bu fi toogee mooy def yooyu lan moo tax lu ñëw rek ci wàllum sëy ñu jor ko góor ñi ne ñoo sikk ñoo deful mais dafa fekk ne bari na loo xam ne day des day nekk ci ñoom waaye tey nag yaay damaa bëgg na tem amul nag kenn indiwul tem dañoo bëgg rek ñu waxtaanee jooyante ki sama bopp jooyante samay moroomu jigéen ci li nga xam ne moom mooy wareefu jigéen ci sëy dafa bëri manquement yoo xam ne ñun dañ koy def dafa bëri yoo xam ne dañ ko néewal doole yaay ci wàllum sëy yi tey jii nii boo ñu doon jox ay conseil nañu ji mantulaay tey boo bëggee nekk jigéen sëykat dëgg-dëgg fii ngay commencé waaye balaa ngay teere parce que xam naa ne sëy amul teerukaay waaye di nga ni ma fii ngay jaar fii ngay jaar fii ngay jaar laata nag yaa ustaas yu dugal ci wareefu jigéen ci wàllu sëy jëmale ko ci diine waa xam mantulaay sëy dafa nekk loo xam ne dafa sacré mm-hmm. sëy lu sama borom validé la mm-hmm. wàcce ko baaxe ko jaam ñi eh, sëy nekk loo xam ne sama yaay di wax ne sëy du fa dëgg la dëgg la yaay du fa dëgg la mais nag dafa laaj une formation au préalable mooy formation bi jiitu ci jigéen pour mu mën a affronter sëy mooy éducation de base ñu yar xamal ko mooy kan jàngal ko les vertus cardinal yi nga xam ni moom la jigéen war a làmboo bu ci jiitu mooy ñu xamal ko valeur bi mu am parce que nit su xamul li mu am ñàkk ko sax a tane sëñ ci Ahmed Tidiane si moo ko doon wax rahmatullahi alayhi nee na am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko moo ko gën d'abord nga xamal jigéen mooy kan xam ne jigéen mooy la mère de l'humanité comme j'ai l'habitude de le dire jigéen mooy ndeyu ñëpp jigéen mooy umul madrasa comme ni ko oustaz di waxee jigéen mooy ki nga xam ni mooy defar société parce que defar benn jigéen moo gën defar téeméeri góor parce que bu jigéen jagee rek ku mu àndal mu jagal la jigéen nag nañ ko xamal mooy kan mooy mu tàmbalee ci xam ni moom valeur la mhm. di trésoru sama borom bi muy mhm. denc li mu gën a fonk ci li mu bind mooy doomu aadama mhm. nga xamal ko d'abord mooy kan xamal ko lan la war a làmbo bi ci jiitu nag mooy kersa mooy maandu mooy jom mooy ngor mooy la parce que mantu sëy dafa dafa dafa dafa nekk loo xam ni course de fond la du course vitesse parce que loo xam fu mu tàmbalee te xamoo fu mu yem du lu du lu ñu mën a à peu dans le temps loolu nag dafa laaj jom mhm. ak ngor bu la mën a gunge ba nga àgg fa nga jëm mhm. parce que des fois nga daje ceeg ay pakk daje ceeg ay xaaxaam daje ceeg lëndëm lëndëm yenn saa yi nga toll ay guddi yu ñuul kukk yoo xam ni boo amul éducation amuloo ngor jàngaloon la jom ak sutura rek balaa làmp yee tàkk nga ñaaw. dëgg la mantulaay sëy nag di lu sacré sëy di lu am valeur sëy di ndamal jigéen parce que loo mën a am tey état station bu mën a nekk te amuloo jëkkër dafay am yu yu manqué ci loo xam ni dafay mottali sa kilifteef mm-hmm. mottali sa taxawaay ba tax na boo ci dee dugg dañ la war a préparer waaye léegi nag dañuy jur suñ doom yi rek cinquante ans six cinq trois ans lay am rek ñu yóbbu jardin daanaka amuloo temps wu toog ak moom di waxtaan mu gimmi dugg école diggante ba muy egg secondaire bay egg ci euh, école supérieure yi dootoo am temps matériel pour forger ko wala li nga war a ji ci moom ci bi muy xale bu la rëccee bokk bala nga koo damu manquant yi day bari bi ci ëpp mooy sutura mantu sëy amatul sutura nit ñi ñu ngi ci biti weer nañu àdduna dara nëbbatul te loolu c'est dangereux Mm-hmm. li ñuy def ci seen intimité mi ngi ñu teg sur la voie publique lu ñu war a ànd dee seen borom kër mm-hmm. mi ngi ñu étaler aussi de tout le monde dëgg la te sëriñ mm. Pape Malick si sama sëriñ mali Malick Fawad Bakar ma koy ziar di ñaan yàlla yokk leeram te taasu ci barkeem nee na intimité mooy lu bokk ci ñaari way dencante góor ak jigéen nee na su amee une troisième personne bu ci ñëw rek vulgarité dugg naa dégg loolu mu ne bu amee troisième personne vulgarité day dugg dëgg la mantu la am am na loo xam ni des fa sama borom sañ ñu def néeg def bunt ak palanteer utal ko tëjukaay wàcce rido tëj bunt fay lam ñaar ñett ni sutura tax sama borom def ko su demee ba li ngeen di dund nekk ci mbedd mi amatul valeur te mantu am na loo xam ne bu fesee dootul am benn barke la ca nekkoon sama borom daf koy rocc léegi sëy yaa ngi ci mbedd mi ku ci am problème tey boo toog ak sa jëkkër tongoo deux jours rek boo liiree statut xam ko koo ci lii satem di nga xam lan lay dund ak jëkkëram koo ci lii rek di nga xam ban état d'âme la nekk mu ngi ci moment de bonheur wala mu ngi ci ay moment de détresse wala am na ci naqar wala mu ngi souffrir te loolu bokkul ci li ñu daan yëre jigéen mantu kuy def koo jot waxal ko xamal ni sa wax ci biti lay fanaan. dëgg la am na loo xam ni te xale du nax moroomam ndax ni du musu ëpp atam. Mm-hmm. xale du nax moroomam. parce que nit du waaw nit ëpp atam. Mm-hmm. waaw. danga daal def bu fekkee dangay xale ñu dugg la ci néegu sëy nga ànd ak un homme responsable góor gu am yar te am ngor am diine am sutura am teraa nga mën a ànd ak yow ci loolu soo demee ba gis ci sa biir néeg la jaaxal nga doon seeti sa yaay hmm. ni ko yaay de man damaa gis fan yi sama borom kër nangam lii mu am comportement bi am lii mun la toogal doo ma digal la boo demee mi ngi dund ay difficultés yu mën ta wax parce que des fois góor am attitude boo xam ne mënu ko expliquer jabaram. mais yaay tamit loolu nga baal ma dafay nekk loo xam ne dañ koy euh, tàmbalee cultiver dès le bas âge. déggoo li ma bu nekkee da am sa doom doo wax ak moom bu naree bay wax nga fel gémmiñam dóor ko. fexewoo ba sa doom jege la ba di la wax yenn yi su maggee tamit dina am kersa wala muy am gêne boo xam ne day tax barrage mooy am sa diggante moom bari na fi ñoo xam ne bu amee problème dañuy préféré ko wax la ko wala wax ko keneen ko seen propre bi leen jur ndax barrage ba dafa amoon depuis xale ba tey. waaw déggoo li ma la wax dama ne ni eh, eh, eh, de base bi mooy jokkoo bi ngeen war a jokkoo ak a def ci moom parce que am na âge boo xam ne boo ko defu ci sa doom rek pour nga rattraper ko muy indi lacune yi ngay gis. foofu laa tàmbalee mais Mantoulaye bu dul sa yaay nga am yaay parce que du ku la jur rek mooy sa yaay. Mhm. du ku la jur rek mooy sa yaay. Mhm. bis bu ne nga yaayoo koo xam ne yéen a ngi daje ci Adama ak aw ngeen gëjee mais nga daw gis ko xelam rafet tey kat parce que kii sëyul wala mënta sëy mën laa digalu la may way. dëgg la da ngay dem seet sëykat koo xam ne fa mu toog jógul. dëgg la ma nga toog di muñ te ku toog ak koo dëkkal weer ba weer wee de si tooñ na la maa nga tooñ la nga dem seeti ku xelam rafet te jiitu la ca. téye na la jàmm nga wax ko sa soxla mu ne la defal nii defal nii defal nii nga jaar ca am ndam su ëllëgee bu loolu ñëwee da ngay am moyen boo ko teggee nga ko contourner ba ay du am bari na coow yu am ci say incom incompréhension la du incompatibilité du mét de la degré boo déggoo parce que yow mi sëy ak góor boo xam ne tey mën na nekk gam suba polygame il faut nga am arme bu am maanaa boo war a armé wa bu bu ëllëgee situation bu ñëwee nga mën a jàkkaarloog moom. parce que sëy ay étape la. Mm-hmm. ci ceet géeg yooyu day neex. mais su passé parce que li may wax toujours rek ngoro convenance la mais sëy ay exigence la su ngeen dee ngoro kenn ku ne day seetlu neex sa morom mais su sëy amee nag waa ji day imposer day def ay exigence nii laa bëgg doxalee man kilifa laa nii laay def nii laay def nii laay def. te yow mii jigéen nga war a nekk ci charte nangu ko mais léegi mantu dafa bari ay paramètres yu bari dugg ci suñu sëy bi ci njëkk mooy dañu indi modernité ba mu ëpp indi émancipation de la femme te jëmul foofu bu ñuy wax l'émancipation de la femme pour jigéen mën a daw jàngi mbaa mu liggéey ba am lu mu mën a faje soxlaam autonomisation de la femme mais indi wuñu émancipation pour yow da ngaa am liggéey am salaire wala nga am situation ñëw ba ko yem ak sa jëkkër bokku leen ci sëy bi mënunoo yem faaw mu am kilifa kuy diriger peloton bi. te waa ji la ko yàlla jox. xanaa damay jox oustaz Mohamed mu mhm. dugg xuus tuuti. ñu deesiwaat bala ñuy sori. dëgg la 88 628 89 90 ñu bës 2 88 628 28 28 ñu bës ñu bës 2 euh, pour ñu nekk bitim réew la maam si di rapidement rek téléphone bi ku ñëw rek ñu daal di koy dugal lu oustaz euh, ñun jigéen am na charte boo xam ne tegal ci nu ñu war a séyee ci lislaam mantu adduniya mataaun àdduna lépp coono la. dëgg la yonent bi nee na wa xayru mataa'i dunya coono bi gën ci àdduna azawjatu saalix mooy soxna su baax dégg nga. mu ne nabi nee na. àdduna àdduna lépp mataa'un coono la léppi àdduna coono la waaye wa xayru mataa'i dunya coono bi gën ci àdduna azawjatu saalix mooy soxna su baax. équipe bu défenseur bi bu attaque bi baaxee te défense bi baaxul bal bu rëcc dugg. dëgg la. faw nga am défense bu baax mooy soxna soo xamante ni coono boo mën a daj ci biti mant boo duggee ci biir kër gi mu gérer ko te Adja wax na léegi wax ju am solo du nit ku nekk rek sa wayjur nga war a roy mm-hmm. parce que am na doom joo xamante ni jikko ji mu yor moo gën jikko jikkoy wayjuram mm-hmm. am na góor gu sonn ci sëy soxnaam jàmbaar la waaye goroom a ko mayul jàmm mm-hmm. am na koo xam ni soxnaam jàmbaar la waaye njëkkee ma ko mayul jàmm am na koo xam ni soxnaam jàmbaar la waaye wujju peccor goom moo ko mayut jàmm mhm. am na jigéen joo xamante ni jàmbaar la ci sëy waaye njëkkeem moo ko mayut jàmm mhm. te da góor dina toll foo xam ni far yombatu ko am na melokaan yoo xam ni bu fa góor tolloo ci àtte du mën a àtte mënta jëfandikoo xelam mënta jëfandikoo dooleem ñaari doomu wujju yu xeex baay àtte leen dina jafe loolu bu fekkeewul xeex bi dëgg la ñaari soxna yu jote bu jëkkër fekkewul coow li àttalin dina jafe lool doo xam kan ngay jox dëgg doo xam ku tooñ ndax ñaar ñëpp ngay déglu léeg-léeg nga am ñaari soxna di leen noppi loo kenn du noppi fekk du yow la ñuy tontu ñoom ñaari kenn ku ne jàpp na ni bu noppee nga ni sa moroom nga faral mhm. mais mantu am na jigéen ñoo xam ne kenn mënu leen a téye ak lu góor jàmbaar jàmbaar jàmbaar jigéen bu bëtam foqale góor mënu ko téye hmm? jigéen joo xamante ni jigéen ju bëtam foqale mooy mooy jigéen joo xamante ni lu mu gis bëgg ko ku mu seeti bu gisee sa kër écran plat balaa ngoon mu fitnaal la ci bu gisee mantu sol jeesineer jeesineeru mantu ba lay waxtaane bu gisee Mouhamed Mbaye ibbi buntu otoom dugal ci soxnaam bu ñëwee naan maa ñëwee Mouhamed Mbaye Mouhamed Mbaye daal daa jonge moom daal soxna si la ibbi porte oto bi mu daal di dugg toog ça veut dire que neexul téye parce que mu ngi dagg sa xol bi jigéen joo xamante ni mantu téewut làmmiñam mooy kuy wujjee waaw dafa parce que na ci yonent bi wax fukk jigéen joo xamante ni téyewul làmmiñam mantu mhm. saa yu waxee waa koñ bi ni waxati na mhm. génn góor mënu koo téye mhm. sa sagu kër rek mooy sàggee ko mantu jigéen joo xamante ni ajandaat loo ko jox mu xeeb ko xamul surprise boo ko jëndaloon ginaar 2 heures di matin boo ko yeewee tegal ko ko ci kanamam danaan la foo ko jëndee nga ne ko palaas nangam laa ko jëndee mënu ñoom problème u kaani lañ am kenn mënu koo yor <laughs> nga ni jigéen. waaw deux heures du matin nga surprise ko ginaar. Mm-hmm. indil ko yee ko noppal ko lal ko ci kanamam mu càpp soos dugal ci gémmiñ gi ni la ñuy moom problème mu kaani lañ am munoo koo bégal. <laughs> gisul effort ba yëpp gisul effort bi nga def ci biti ba ñëw ci biir kër gi jigéen ji nga xamante ni mantu boo ko bettee indil ko téléphone mu daal di xool ni la bii la ñoom faatu amoon ah yi mooy téléphone yu njëkk yi xam naa fii ñaari weer boo amee sans élément day dem mu moralu góor benn góor mënu koo téye kenn mënu koo satisfaire kenn mënu koo satisfaire jigéen joo xamante ni saa yu ngeen waxee yéen ñaar parce que am na ci jigéen ñoo xam ne ajandaak dañoo mel ni téléphone boo leen di bippee ñuy fay wax naa la benn journée la am na fay bu am bu am valeur li ñaan fay baaxul ak am fay bu am valeur ni jigéen di fay di ñibbi ajaar ak am fay bu am valeur xam nga ban fay la. Mm. mais sama yaay da ci ñëw parce que dama déggoon yaay ñu naan fay boo demee nekk kilo boo ñëwee liibar ngay doon. Mm. keroog oustaz Mouhamed ak. Euh, pa Ousmane fexe ba andi fi benn théorie boo xam ne neex naa dégg. mooy fayu faj loo xam ne boo ñëwaatee da ngay doon boo boo demee ne kilo boo ñëwaatee ñetti kilo ngay nekk d'accord ma ci d'accord oo ci ah. xam ci d'accord parce que sama yaay ni muy théoriser fay ak ni ngeen ko théoriser du noonu oustaz continuer na après sama yaay ñëw ci mantu bi ci des mooy jigéen di nga xamante ni yaaq moom ci biir kër gi sañ-sañam la lay jaay waaw dooleem. am na jigéen joo xamante ni sañ-sañam la lay jaay. ñu simple fi ajaa daane léegi ar rijaalu xawaamuuna ala nisaa yi kër saa yoo fa duggee ni ana boroom kër gi ku góor ki tëdd ku jigéen ki ne maa ngi nii góor ki bu yaboo mu dugg toog ba añ <laughs> kër saa yoo fa duggee waa ji toog ne ñu ne ana borom kër gi ndaw si ne maa ngi nii ku góor ki mën naa dugg ci waa ji bu pare raxas duus ñun deux ñun ñun euh, jabar 2 point 0 dañu wax naan ñun ñun ak góor ñoo bokk kër yi de ci ban fànn. waaw ñun noonu loolu la ñuy wax parité la ñuy woote. mantu wala sëy bi amul parite amul parité sëy amul parité. amul parité sëy sëy bu doon am. sama yaay lu muy bëgg wax sax sëy buy am parité jigéen day ëmb góor ëmb ñu xam ne parité am na. sëy amul parité. góor jaxte jigéen jaxte. dégg nga la sama yaay lu mu bëgg wax sax noonu parce que xam tax. man day wax rek ma validé. parce que xam tax mooy analyse yi muy teg. dégg nga baat bi mu la wax sànq ni mu amee njariñ mantu booy takk. Mhm. jigéen léeg-léeg dina am problème mu sëy mais yaayam bi ko jur war ta nekk nawleem ci sëy Hmm. day xooli ku mel ni ajandaar dugg këram nànk 11h wala midi wala mu bàyyi ba 3h heure naan attaay yaay dama laa soxla yaay sama jëkkër nangam sama jëkkër nangam sama jëkkër nangam ajandaar xanaa xamoon ni am na yaay yoo xam ne bu leen doom dégloo tas seen sëy. falaa doon ñëw sa yaay def ne loo am yëlal déewoo ko sa ndey. te yenn saa ñu yedd ni la li la metti bul ko wax sa ndey ndax yaay day sotle doomam te léeg-léeg dem nga ngay dem sa yaay di ko wax say problème mu ne mën naa tas sa kër yaay maa ngi lay dëxëñal ay laaj rek bari na góor bu këram naqari looloo ko indi bari na jigéen bu sëyam naqari looloo ko indi baax na mantu góor du lu ko naqari ci soxna mu wax ko yaayam mhm. parce que yaay dafa bëgg doom waaye jigéen nit du lu ko naqari ci sëyam ci borom këram mos naa seetaan benn documentaire boo xamante ni ci faatu géwal la doon dem kuy sëy ak doomam jaawale ndaw si muy woo woo faatu te ki doon woo coroom la te muy te muy te muy te muy ngoraloog faatu géwal waa ji ci boppam laa dégg bés boobu mu daal di ko wax ci discret ak mbaax ak sutura bi ko faatu géwal dencal en tant que gorom dafa am yaay yoo xam ni yaay lanu mooy lépp lanu àttan mantu am yaay yoo xamante ni duunu yaay xam nga la yaayu lan lanu yaay ñoo ëmb yaayu ñoo boot bu yaay demee bay wax doomam bu jigéen sa jëkkër ji nag wax dëgg yàlla war nga koo xeeb sa jëkkër ji war nga ko nangam sa jëkkër ji war nga ko nangam mm-hmm. mag mantu xam nga luy xeeb xel waaye xol bu xeeb mhm. xel xel mooy dépassé naa diw mhm. nangam naa ko mais xolu doomu aadama xamut loolu mën nga nekk ci kër am fa cër te amoo boroom kër maçon bi dugg ci kër gi ngacc ka ci duus bi dugg ci kër gi oustaz bi dugg ci kër gi ñooñu ci boppam am koo ci bëgg ba ñàkk sago ci moom yow ñu ngi xoole sa askan fu sori fekk yow sa xol am na koo gis ci àdduna rek am na att bu tax nga jàpp ko ak ku mën a doon ci àdduna bu ko defee jigéen ñi man sonn nañu ci kër yi lool lool lool lool lool waaye yéen jigéen ñoo sonn noonu la mel góor ñi sonnoon nañ ci kër yi lool lool lool lool waaye yéen góor ñoo sonn benn bi may daanale rek muy fitna pire mu ngi déparé ci wujje bay wujjeeg sa borom kër di wujje bay wujjeeg sa soxna am na góor ñoo xamante ni bu ñu joxee dépense 2500 bu ñu yëgee ni seen soxna teggi na natt dañ ko tapas ba tuddloo ko natt bi ñu ko dee ci joxe dépense. wala bu la mayee 200000 teg ni may nañ la àdduna duñ joxeeti dépense duñ dara. waaw. ci xaalis boobu ñu la may 150 000 mil 000 75 000 bi te nan laan def ca dépense def ci yow say propre besoin boo leen laajaatee ñun la daaw. mais am na ci daaw 2021 eh. naa la 75 000. mais am na ci góor ñoo xam ne bi ci gën a gàtt sax ajandaat sa xarit yow góor moo lay seet. di dem may sa jabar 20000 francs sa jëkkër teg 20000 francs yi ba tëb. waaw bu xëyee du fa bàyyi ndékki du fa bàyyi dépense boo nekk alaaji mun laa ne 20000 litres la may démb. waaw ñoom tamit kenn ak yow ci ci ci fay. balaa ñu ñëw ci beneen état bi mooy yaay bi nga wax sànq te oustaz Mohamed Mbaye indi argument yoo xam ne it yaay neexut a teggi mooy yenn saay confié wu ci sa yaay trop trop day tas sëy waaye yaay balaa boobu ñëwal ci ci ci ci fay parce que keroog euh, Mohamed mbay ak euh, Pa Ousmane seetaan naa leen seetaan nga leen argument te noon argument yu dëgër nag yaay dañ koo validé dañ koo validé te du lu ñuy validé fay du lu ñu war a teg sur la place publique fay parce que buy éduquer ki lay te sopp lu dul yow te yaakaar na ne lu mu wax noonu la day jël sa wax boobu mettre ko en échec te fay fay boo ma a gis boo demee boo nekkee sa kër di kilo boo fayee ba ñëw libre nga ak koo mën a doon. ak noo mën a ñëwee ak koo mën a mel. parce que ñoom nee na ñëw bi ak la ngay faj parfois mën na la yokk. te bi ci gën a garaaw. mooy fay day toj galaaju jigéen day toj galaaju jeeg. ab jeeg du fay xanaa xamoo ni am na foo xam ne bu fa jigéen tolloo di jigéen yu wéru dañuy seet jeeg. bu wàcc ci këram te mës ta fay mu defal ko gàllaaj ga hmm? waaw man waxuma ak tey de démb laa wax parce que man je suis féodal man j'aime les bon manières yi nga xam ni loolu la maam yi ak yaay yi sëyee dëgg la mooy tarbiyu ak wàcce sa bopp xam ni jigéen nga c'est pas dans le sens péjoratif parce que jigéen valeur bi ko yàlla mooy mooy trésor bi yàlla moom la ko denc hmm. benn fay daf lay wàññi parce que sa doom bi nga yóbbaale mbaa sa goro bi ci kër gi doomam waxtaan nag moom mu d'accord ñu dem tànn la teral la indi la nga sëy si nga am la naqari ba jël sa ndabul pay dem weer sa bopp ca sa ndey ak sa baay ak say bokk ak ña ko woon a yëg ñu yokku nga deesi te du léppay faju aja mën naa la laaj foofu. du léppay fajoo. mën naa la laaj foofu. am na jigéen joo xamante mais yaay bu dee bu dee kenn ba nga demee it ba nga toogee ca kër ga goro boobu nga wax wax nga xalaat ba son dara fajuwul. waaw mais dem say mbokk xalaat la rafajuwul mais bu nekkee ni fay bi tamit intention bi du woon pour fay mais pour dem définitivement la faru ñu defar rafetal nga ñëwaat. jigéen ji nga xam ne jëkkëram guddi gu jot ñu dégg baatu jëkkëram ci saaga mu wax lu ñaaw ñëpp tëdd jigéen ji nga xamante ni su nekkee ci kër gi te ñëpp xam njàmbaaram ñëpp xam toogam ñëpp xam ne li ko jëkkëram di jox doyul waaye ci jomam ak ci ngoram dina ko jaral mu dem jaay lamam dina ko jaral mu dem def nangam jigéen jooju nga xam ne tey jii guddi gu jot ñu dégg loxo bu départ dal ci diggu ginnaaw bi wala nga dégg guddi gu jot saaga bu jëm ci moom wala nga dégg guddi gu jot yaay bàyyil papa bàyyil sama yaay mu dem ba kër gi xam ko mu dem ba quartier bi xam ko est-ce que warul mu génn waaw mais loolu loolu loolu loolu oustaz c'est une autre chose loolu beneen hmm. affaire la parce que affaire bi mooy choix le choix du mari ak le choix de la femme tànneef bi le choix est déterminant dans la vie nit tànneefam dafa am solo ci moom yow yaa war a def un ci sa partenaire gis nga ni ñu war a tànn jabar di ko seet sëyukaay sëyu nitu tànn fa doomam wala jigéen bu am vertu noonu ngay xoole un bu am vertu kilifa dëgg góor gu am valeur dëgg am personnalité du dóor jabar ba di ko saaga loolu d'abord c'est un fait bokk ci parce que man su may wax maa ngi ci cadre normal règle normale de l'art normal moom jigéen waru cee fay règle de l'art ci laay wax mais soo ko indee validé ko rek ki xelam gàtt te mu déglu la te yaakaar ne li nga wax mooy li war a am foog na ne bu fayee problème am réglé fekk du réglé wu te loolu c'est un problème boo xam ni du du fay moo koy réglé dóor ak saaga du fay moo koy regle du fey moo ay réglé parce que nit mën nga tànn nit a lëndëm mën nga dugg ci moom sax am loo xamul parce que bu dëkk Amérique di ko fay nga dëkk ak moom gis ci ne moom c'est un homme violent ah loolu nag day jar taxaw ko parce que li waral nit war a am kilifa ba toog ci peggu ndeyam ak baayam ñu tànn jëkkër ju baax mu am choix ñu approuvé ñëw may ko ko mu dem ci këram dafa am loo xam nag rôlu kilifa yi la dañu koy dox si wax se ko dóor ak saaga bu amee benn yoon saaga rek su amee lu jëral lijjanti la parce que saaga indi dóor. waaw bu ñu ko doxee lijjanti ko wul. bu ñu ko doxee lijjanti wul nag loolu demee beneen décision la. parce que kenn ku ne sa bopp la gënal man bokk ci li ma xalaat. man bala maa bëgg kenn bëgg sama bopp. bala may honoré kenn sama bopp parce que xam naa sama valeur toog fi a toog def li ma war a def mat li ma macha allah su ko matul nag te indi dóor ak saaga te lu jigéen mën na ko mu muñaale ba mu des dóor ak saaga ndax jigéen nangul wàññi yokk rek la nangu léegi kooku bu génnee dem waa ji commencé souffrir parce que nit ku nekk nag ajaa wax naa la léegi ni la mantu léeg-léeg nit dina génn këram ki mu bàyyi natt boppam xam ne ay na du waaja bari na góor bu ñàkk a jox cëram soxnaam dem toppi beneen xale bu jigéen di lagar-lagari ba soxna soosu génn dem kër baayam toog définitivement o contraire que moom waa ji mooy xëyaat fu mu dégg sëriñ dem jonkonu fa kon mhm. lan bëgg soxnaam dellu siwaat kon moom mu ngi doog a xam valeur u soxnaam ñi mu dëkkal xam ko mais Adja jigéen jooju nga xam ne tey daj na loolu ci sëy fipp mag ñi wax waa ji delluwul ginnaaw ndaw soosu génn dem kër baayam toog fa ñaan baat tey ndaw soosu bu ci ñëpp xaatee ba waa ji ni changé na bàyyi naa dóor bàyyi naa nangam bàyyi naa nangam est ce que ndaw soosu dellu si waatee day doon lii alkaati du bàyyi dóor maanaam lam fa bawoon da ko fay fekk. alkaati du bàyyi dóor un homme violent du changé naturam la naturam la du ko bàyyi. pourtant am ñoo xam ne fay nañu ñëw faj lu bëri. Ah, mën na nekk changement am waaye man day. waaye yow acte bi man ajaan daal man je suis pas pour jigéen fay. Mhm. gën a cëram yow. daf lay wàññi yow mën nga ko fajee lépp ba mu des fay yow fi nga waxee fi nga waxee mi ngi ci kaw sax. góor gu am jom te bëgg yor jabaram. parce que des fois nga gis koo xam ne dafa pes ci juum ci meram la topp. ba def pes pes bu naw te loolu sa woto doon fay. war naa am benn règle wax xam nga ne xanaa xamu ni ki la tànn parmi tant d'autres. ki ni man mantulaay mii rek laa bëgg moom laa takk. te booba ba a ngi fi. mu jël la indi porter son choix ci moom. su fekkente ni am na personnalité ak maanaa boo doxalee sa diggante moom war nga ko mën a corriger te yaay ci yëg. mais loolu faju génne boo xam ni. waaye yaay am na yoo euh, xam pesum kanam ba dama koy fajal boppam de. am na yoo xam ni tànk demoo du faj. kilifa yi bokk ci ah. am na loolu xam nga mën na am ñoo xam ne tànk parce que baadoo la sax mooy xaar ñu yor ko pour mu yaru. am nit ku yiw dafa am nit yoo xam ne faaw nga ñoom foofu. waaw nit ku yiw soo ah, junjee rek war na mën a def mais man du tax ma valide fay. man loolu principe yow daal àndoo ci yow waaw d'accord ma ci am na am na beaucoup moyen yu ñu mën a jaar mu réglé ko sinon fi la ñuy fanaan am na jigéen ñoo xam ne tey rapidement trois minutes moo ñu desee waaw am na jigéen ñoo xam ne tey bu ñu génnee dem du ndekku leen jëli parce que seen see ci kër gi danoo xamadi faale wuñ goro faale wuñ njëkk maa tey la ñuy dund kooku boo génnee dem déggoo ku wax ci kër gi dañuy sant ni kër gaa ngi naat waa kër gi commencé nañoo génn ci biti bu kooku ak ku la mën a jëli boo dellu siwaati mën ngaa doon xaalis léeg-léeg nga fay sax say mbokku jëkkër rakkam wala magam wala tàntam ñu la ñëwaat da nga sonn yow bul ñëwaat da nga sonn voilà bu ko defee balaa ngay ñëwaat ñëpp dinañ xam ne dañoo sonn ci sa ñëwaat ah. te dañoo wax pour mu changer programme parce que ñëpp xam na ne danga nekk ak coono boo xam ne il fallait que nga dem am na fay yoo xam ne peut-être li kiy waxee keroog moom dama koo xale yi nga xam ne 24 fay rek parce que da nga am fay waxuñu loolu mais am na fay yoo xam tamit mën na faj ci benn côté mais yaay wax ak yaay ji rapidement parce que deux minutes moo dese euh, da nga ne sànq jigéen war na lu lu ko naqar ci sëyam balaa mu koy confier keneen mu confier ko yaayam te oustaz wax léegi ne te ma yàgg ko dégg ci ay mag ñu ne wax lépp sa yaay yenn saay mën na nekk luy tas sëy ndax yaay day sotle doomam rapidement waa dama wax sama biir wax ma ne du ku la jur rek mooy sa yaay du ku la mooy sa yaay yenn saa yi nga gis nit def ko nday dëkk boole leen wala ak bokk wala daje ba am soppante nga naw jikkoom def ko yaay daw laa ko ci moom bari na loo xam ne ñu ngi koy fajal nit ci biir sëyam te yaayam yëgu ko parce que du la ñu on rek wax ko sa yaay ndey ak doom dañoo jege antoo mi ngi mel ni goro bi dem boole jëkkëram yaayam boo ko boolee yaayam même su fekkee am na dëgg yaayam amul lu ko neex parce que doom la moo ko jur loolu nañ koy sóoraale du la naqari sa jëkkër nga wax ko yaayam bari na loo xam boo ko waxee yaay rek koy frustré bari na loo xam boo ko waxee yaay xolam jeex bien que mën naa ànd ak yow parce que am nga dëgg mais du doon lu ko gënal mais lu mu mën a doon mu ngi ci éducation bi lay yare bala ngaa egg ci néegu sëy mantu jigéen dafa war a yaru d'abord yaru jigéen dafay yaru parce que góor di nga gis sa jigéen boo xam ne ki mu àndal moo ko modeler à sa façon moo ko indi ci yiw ak yar parce que loolu lañ ko yaree da ngay yaru jigéen dafa war a dal jigéen dafa war a am jàmm la paix intérieure parce que am ñoo xam ne amuñu jàmm ba koy jox kenn. am ñu jàmm sax ba koy jox jëkkër. elle se plaint tout le temps. mi ngi amu leen naqari li oustaz wax léegi boo indee gannaaw sax ma ne ñooñu problème mu kaani la am. dafa am ñoo xam ne du ñu ay nit ku yiw te nit ku yiwul wóorul sax ànd ak moom waxuma laa gisee ak moom surtout jigéen. Mhm. jigéen dafay yiw jigéen dafay am sutura parce que manquement yi ci biir kër yëpp su ko génnee weeroo. te ku weeru amatoo sakk. dëgg la te mantu lay sakk la. li ci biir kenn du ko wax. des fois xëy jëkkër di xëy nga dem di leen ci boutique bi kafe ak suukar mu naan dem liggéey nga li lijjanti dépense te bu wàccee war a añ war a reer waaw bu ko ñëpp yëgee ana sakk. yàgg na fi am. te bu ko ñëpp yëgee ana sutura mag ñi daan yar seen xar parce que jot ñu xam ne waa jaa ñu waaxu dem dañoo amul dara mun la xar mi ci wanag bi jël ko rey ko. mbaa bala moo wasi wutal bu ba mu yëree. yaa nag léegi xale tax ñu yuuxu mooy li ñu def ko ci kër ga ñoom ñoom Omar ñi au lieu li ñu am ñu def ko ci kër ga dañuy dem fekk benn xale bu toog nee ca koñ ba ñu gis xale bi jàkkaarloog moom mu jël la mu am di ko jox xale ba bàyyi njaboot gi ci kër gi waaw man loolu tax yenn saa xale yi xale jigéen da ni man nag mantulaay ki xam li ko war te def ko te di ko def taxul may wax mais ki war a def devoir am te defu ko parce que gis nga saa yoo wàccee sa jabar seeti jigéen bëggal ko rek moom bu dee ku mat war na laa xeeb soo génnee sa conscience na wax ak yow yëpp ay yaa koy dàq. naan la yaa ka ñàkk jom. xale yi ragaluñu loolu yaay. yaa ka ñàkk jom sa xale yi wax ak yow. xale yi ragaluñu loolu. bien que soo doo ko dégg war ko joxe dépense ñun la tegal fii. nga la lii laa war a jox sama njaboot suba ñu ñu xëy togg jàngee mun la yee eh, tegal fii nga kooku irresponsable la mantu ban waxuma kooku ñoom maam si nii yàgg nañ joxe seen dépense kër ñëw loxo yi neen ne nii man wax ni góor bu la jigéen ne indi ju dul sa jabar nga jox ko dund waratu la ah am na fi de barke yonent bi heure ne responsable gis nga loolu nag bu doon ko def ñu faat la ñiy nokki du bëri déggoo lay ma la wax ak a leer dama lay wax rek. da ngay gas mantu déggoo li ma la wax. xale yi xale yu ndaw yi bu jigéen ñi indi nga bàyyi sa ba pare ba pare mantu am na góor ñoo xam ne li ñuy fere. nii la ñuy def nga teg fa. mais nag yenn saa yi eh, donte baaxul. mais mantu jigéen du bàyyeeku. surtout génération bu bees bi am na góor waaye yow melal ni tàngal melal ni tàngal bu ñuy xoolee bàyyi mais ma yooyu waaye mantu am na góor ñoo xam ne bët la ñuy bëggee tànk nañu gis maquillage waaw mais mais mais mais oustaz oustaz melal ni tàngal parfois duñu xale oustaz parfois duñu xale jigéen yoo xam ne. oustaz dana seen jëkkër lu muy doyee keneen. waaw oustaz te pourtant dañuy am ñeenti jabar rangale ku dàq sa moroom nga ni sa raw mais dafa am ñoom feebar boobu wax ji du foofu déedéet wax ji du foofu mais oustaz oustaz taar bi ak bët bi ngay xoolee taxul nga ah. war a def sa devoir d'homme ah. sa devoir de mari góor ñu faible ñoo xam ni bët la ñuy bëggee waaw mais boo dee bëggee bët bu tey sa devoir jox xale yi ñu faat la kenn ñuy dund du bari dëgg la de ma lay wax rek kon ñun oustaz ñoo ko fii des kaa ah, eh, gën a mën a pepput dara du leen bàyyi yàlla bàyyi ci oustaz yi ba ko war a duñ ko def duñ ko def de koo dugal nga bëgg. waaye dama lay xamal genre maam Sidi boobu waaye faatu nañ fa yàlla ko. ñu ngi leen di onze ixlaasal maam Sidi lu mu yor yónnee soxna si. kat dama koo xam kat maam Sidi lu mu yor. li benn booy dawal ma lay wax dama ko maîtriser jigéen ñi nañu bu doon loolu daal ba tey yàllaahu ñu ngi jéggalu sii di yaay maa ngi lay jaajëfal nañu yaraat daal te góorgóorlu bu subaa ñu àggale ko incha allah ubbiwaat beneen thème Omar xam na ak sama yaay ajaratu ndaag lay doon xam naa nag moom yàkkamti ngeen muy ñëw waaye sama oustaz bi kenn du moom ndax bu ñëwee day indi ambiance rythme daf may daf may yëngal di ma wax naan la yaa ngi tëgg ay ay wax da yëngal gësam <laughs> kenn du moom oustaz Mohamed Mbaye bu Jamil kenn du moom ndeysaan jeune oustaz boo xam ne nag macha allah daf leen fi mujj nag waaye daf leen mën kenn du moom macha allah on touche du bois <laughs> di leen sant di leen gërëm sama rakk ji Euh, inspecteur maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax borom perruque bu jongama bii ci man kenn du yow sama rakk bopp baax nga bëgg nga ma waaye tam am nga ci man yëg yàlla na la yàlla fay sama xarit nag Njaga Matar Njaay moom moo jaar ci yëre bi maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax Njaga euh, loxo bi na wér di jaajëfal ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ ci émission bi euh, Pape Diène ñu ngi koy jaajëfal ci réalisation bi waaye tam di jaajëfal Omar Diallo mi nga xam ne moo nekkoon bi Mam Sidi ak ñoom Ibrahima ñoom ñëpp ci suuf maa ngi leen di jaajëfal bu wér a wér ci jàppandal ngeen jàppandal émission bi astu borom Pikine ñi ngi ñàkk njëriñ la waaye naa ko nuyu rek asu ñu ngi leen nuyu amalal njëriñ nag sama waaj oustaz ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar bu wér a wér ba suba incha allah ci beneen waxtaan ko lay doon incha allah ak la